ginnaaw loolu Siteu gën a nekk xale bi njëkk a bëre titre roi des arènes histoire da koy bind. te du gone kenn le plus jeune lutteur. Hmm. histoire da koy bind. am na nag ñu ma dégg ñu naan Siteu mënta daan Modou loo hmm. wax ju yàqu la ku xool fu mu raayante ba yegg fii. mais état Siteu Modou Lo kii Siteu bi mu jugee Gambie ñëwaat. am na yokkute bëgg na bis bi xam na lu ko bis bi jaral. Hmm. ba xam nga ne ba jàmm gën ci suwaaru làmb mosu ñoo bëree titre roi des arènes mi ngi soog am. dafa sama mbër bu ne waroon na fi waaw. waaw nag gars yi nag da ñi wax dama ne ñi jox Modou Lo favori. dama ne Siteu mooy xale. fa Modou Lo hmm. tolloon keroog bi ñu bëri am seen di jël titre roi des arènes fii la Siteu toll nañ ko sóoraale. lu Modou loo di def benn xam naa ne Siteu bu fekkee bëgg na bis war na cee mën a def dix. Hmm. ndax moom moo bëgg ndax ñëpp dañ ne mënta daan. maa ngi dégg benn waaye di wax ni Siteu bu mu jàpp ni euh, làmb ji mystique ndax moom da jàpp si mystique. bëgg na bis bi te gis naa ne waa jàmm gën bëgg nañu bis bi te bis nag bis bu ne bis lay fay Modou Lo nag kenn représenté wu ne ndaanaan la waaye damay wax ne leen tamit te ba Modou Lo daree bëri ba léegi mi ngi doog am adversaire de taille bu mel ni Siteu bëri naa ku ba ci laay bey bëreeg Alioune Seye bëreeg Double Less numéro 2 bëreeg Boy Kayre bëreeg Pape Mor Lo bëreeg Papa Sow booy Tafa Bambara mi ngi doog am taille bu mel ni Siteu ci làmb moom Modou Lo taille bu ko sut lool te Siteu dafay faral di wax ne képp ku ma féete suuf maa la man ci combat bii lay leer la le quat lay leer ba xam moom Modou Lo bis la ci bis yi bis la ci bis yi mu naan si te daan Modou Lo wax ju yàqu la waaye Modou Lo kenn xamul lu mu doon nag moom ndaa naan kullu fadrin la sportif la athlète la day entraîné. kon combat te lan la si mën a am. mën na ci am lu bari su ma maay digaloon nag du ma neex du ma du ma du ma xeex ak Modou damay bëree ak Modou ak mutloo bi may bëree Modou dama koy peeg nax ko. teg sama tànk jiital ko bëri la ma bëri woon ak contre ma Papa Sow bëri la ma bëri woon ak contre ma Zarko te su te su ma koy bëree nee naa ko na bëree ci làng gi bu mu bëree ci digg géew bi. bëree wet ca saako ya. waaw gis nañ Modou Lo contre Ama Balde Ama Balde dafa ñëw dal saako ya laay bëree Modou bu ma foo Modou gëtte dinaa daw mel ni ku ko ragal. cinq minutes arbitre woo ma ne ma bëri leen mbaa ngeen génn ma cinq mel ni ku ko ragal cokkaas su ma cokkaasee Modou sax distance laa koy may. Modou Lo mënut combat bu yàgg lu mu yàgg-yàgg day ñëw bu ñëw gi nag bu songee sita avantage Siteu la saa bu ko Modou Lo songee ba dal ci ay tànkam avantage am la ndax boo xoolee Papa Sow daf ko song ba jeexal ko daa song Siteu ba jeexal ko ñëpp lay désolé Siteu ñàkk na Siteu dóor ko bu sulus ànd ak moom jiin ko Papa Sow jaaxan dëpp kanam bi boo xoolee Zarko bi muy song Siteu da koo song ba jeexal ko ñëpp na jeexal na Siteu di përni ko bëre ak moom kon sita ndaanaan la te mbër mu mën a tànk la Modou Lo nag ndaanaan la Modou Lo mën naa am bu xeexee mën naa am avantage ci xeex bi bu bëree tamit jàpp ngeen du curux curux xam nga ne moo du bëree jaaxalu ko mën naa am dara ci kaw Siteu waaye Siteu tamit am na ca fort muy saa bu Modou dawee wut si ko fekk si ko ci tànk yi moo ko moom ndax seetaan naa ko ko ëpp chance xanaa la 24 la ma génn góor mosoon soona wax damaa mos a fekk ci benn place su ndékki kaay may ndékki mu ñëw ne sarax ngir yàlla ñëpp ne tekk mu ne sarax ngir yàlla ñëpp ne tekk mu avancé foofa làmb lañ doon werante booba Balla Gaye kan Gris Bordeaux ñoo doon bëre mu leen xam naa kii daan big si guddi yàlla woon na ma ko xam naa kii daan ñëpp bàyyi liñ doon def na ko papa wax ñu koy daan papa wax ñu koy daan papa wax ñu koy daan mu leen déedéet du ma ko waxee noonu téeméer téeméer leen ma ngeen jox ma wax leen kii daan ma wax leen jël bi ni muy demee a kii daan moom la waaw am jaar si la kenn bii booy ndaw rek julli si yorente bi santaat suñu ñaari waajur bu baax di gërëm suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal kilifa diine yépp ak kilifa aada yi di leen woow si làmb ji nag di leen xamal ni baval bi moo xewle seen doom seen xarit seen sët seen lépp waaw na àdduna génn ñaanal ko te yàlla tax ndaw waaw ndaw am solo si biir goxam la day dimbali waa goxam di def social waaw moo di xool leen loo xam ne moo ko war mooy lu rafet mu koy def waaw kon ñu ngi ñaan ànd yëpp ñaanal ko daal waaw daaw ci waxtu wi ngeen ne du la dagay yéen ak Modou Lo la ñu leen deewoon la ngeen difoon non pas lu ñu dee sax xam nga làmb moom man la soom waay du biir rek xëy rek wasin mhm. te Siteu boo xoolee parcours am dafa xaw a méngool parcours Modou Lo mhm. ñun Modou nag champion la bu ñu respecté mhm. bu ñu jox cëram mais nag naa ko xamal benn affaire ne ah. lim doon def mbëri nag ko xaar rek lépp lépp lu doon def mbëri na ko xaar dóor mu daanu dóor mu këpp lépp lu mu doon def mbëri na ko xaar si suunu combat moom bii nii dinañ ko ko def. ah incha allah. koo xam te def noonu. bilaay walaay taalaay lépp lu mu doon def mbër dinañ ko ko def. kaa ñun lii lu waay yàlla buñ kii Modou Lo suñu reef la ñu yeggaleel nii rek gaynde. ah c'est-à-dire reef bii la amoon bëri indil waa jàmm gan ruwa. Hmm. wàccoon naa ñoom jàppale na leen ci domaine bu ne. Hmm. ruwa rek la deseel dëkk bi. jàmm gën ba mu daj ci roi des arènes. waaw c'est la première fois. non non tund bi tund bi mosuñu dégg titre roi des arènes mosuñu mosuñu am mbër bu ko mbër boo xam ne day day dem di ko bëre moo tax champion yàgg na fi. Hmm. fii nii tey boo xoolee tey ay dégool ay as ay champion yooyu noonu yooyu ngay dégg yëpp. mooy papay Pokola seen kër ngi nee si ginnaaw. Eh, seen waa kër ñooy dund lépp. Hmm. waaw grand as ñu ngi koy ñaanal bu baax waaw. combat bi amul pression ci yéen. non non yow ñun amuñu làmb ji i jël mooy pression ci ñun ñun ay Baye Fall lañ amul luñ jomb suñu laayef. Hmm. waaw lépp lu yàlla dogal suñu kanam xam nañ ni lii dafa war am suñu dund ñun ragaluñ de gaynde hmm. waaw. bi Siteu di doog a ñëw kenn gëmu ko woon ñu naan xale bi dafa tuuti mënu nangam tey ñu jékki-jékki Siteu am maat bu doy waar boo xam te ni daf ko ëndaale. waaw nekk xale xam xam nga Siteu moo koy wax boo ne tekk tekk wan la yoon. Hmm. nekk xale di rampe nank-nank naanu lu koy gaañ. yàqul yaramam. jàmbaar mbëri si faju lañ toll de. si faju lañ toll mbëri yi nii si làmb ji. faju faju. maanaam lu muy tekki. wérutuñ ñoom ñëpp. Ah. dañoo yàqoon seen yaram ngir bëgg a ponkal. di jël la di jël lu si bokkul lu si bokkul. xale da ngay liggéey étape par étape. Mhm. su ta Baye la di liggéey nànk par nànk. Mhm. ba màgg jot mu màgg. Mhm. làmb ji moo laaj màgg bu ñu jugee fii si liñ jëm la du làmb ji sax moo tax sax su te di liggéey yenn liggéey nii ngay gis nii. ban làmb moo tax buñ buñ jugee si làmb ji si kattanu yàlla mbaaxam. dafa am benn ah. parcours buñ def kon ni ko champion yi defee. waaw parcours lañ bëgg def. Hmm. champion yi si kaw yëpp lañ taxaw xaar dinañ ci daan six ba sept. Ah. incha allah man Fallou maa la ko wax. ñu waxtaan wala ñu def ci code rek ñëw ci wàccaay bi tey. yéenay xool lu leen neex ñun ragaluñ fi ñu ne. ndax fu mu toll nii moom xam naa ni yéen waaw ko góor gu dëgër. Modou Lo champion. Hmm. gaynde jàmbaar. Hmm. mais mais mi ngi bëreel koo xam ne. lépp lu nekk si moom li ko triplé moo nekk si moom. barke maam Seera Fall. Ah. non yow ragaluñ fi ñu jëm gaynde si de Baye Fall la yow. moom arbitre sifflé Modou dox suñu kaw dañuy tase. Ah. barke Ahmadou Bamba. Modou Lo lamb ñoo am lu ñuy calculer si moom mais Siteu amul lu muy calculer si Modou Lo tey ma xaman leen. Ah. waaye Siteu bul calculer si Modou Lo lenn man la suma waaye kon yow ñun fan lañ jëm yow. gaañ yow dëkk war a yow Siteu war a sauver banlieue bi yëpp. moo mu am lu muy calculé si benn mbër. Hmm. non non Modou sunu grand la champion la mais tamit dafa bokk si carrière bi de. affaire bu dégg ñu la parce que dafa tey dafa waaw muy mbirum famille mbirum sëy. mais maanaam xam nga tey loolu beneen domaine la. mais tey nit ñi dama bëgg ñu xam benn affaire tey. ba ba Modou Lo combat yi mës a bëri yëpp bii la si gën a fonk. Modou Lo ah. barke Serigne Fallou revanche lay jël si yu bari. dafa ngemb Zarko ma daan waaw waaw dugg parcelle dóor sos mu wàcc. waaw barki démb mu ngeemu Papa Sow ma daanu ko. waaw lay jël si. mu ëndi sax ngeen dóor ko mu waaw ba ñi ko yombal nag mooy amaana dañoo yéenewul si te li mu war a bëree. Ah. waaw mais mais ku xool si àdduna xam ne lamb ji mooy lamb ji gën a rëy si àdduna. Ah. barke maam Seera Fall ba si te 10 heures suba lay déparé jàmm gën si te bu teel a ñëw. dix heures suba la ñuy déparé jàmm gën wuti année nationale la dañ bëgg a teel a yegg. non non moo si une heure lañ fi daan départ yegg dix huit heures. léegi yedd dix heures dañuy départ incha allah. mooy yow ah, ñun ragal fi ñu jëm boo taxawee kaw état cité bi ngay tiim année nationale yow. barke maam Seera Fall gaynde ñu si dërëm. Ah. boo dee xool sa ñoo moom ñi fa dëkk sol liñ fa am amuñu ko fa. combat bi nañ si xaar lépp. ah luy lépp nit ñi moom bëgguñu loolu. lépp luy am si làmb nañ ko xaar si combat bi. nee nañ si de làmb ji. Hmm. waaw yow ñooñu loolu seen gis-gis la. Hmm. mais si de ku xool parcours am. non yow loolu yow ñun booy na suñuy nopp. Hmm. waaw ndax ñun bi ñu dalee door ba léegi mosuñu am làmb ñu jox ñu fóobari mosuñu am làmb ñu nangul ñu leen waaw non yow gars yi ñu di champion ñu yàgg ko faral xam ko bu baax. Hmm. mais barke maam Seera Fall mi ngi bëre bis bu musul bëre si carrière am. Ah. moom Modou Lo Modou Lo combat du ko dépassé mais xoola ah. le 24 novembre. waaye xoola bëggoon jëm sax ah. mooy troisième ci ci ci ci booy. gars yi daf la Boy Niang la mais Siteu du ñooñu. Hmm. Siteu leen gën a dof fois. Ah. barke maam Seera Fall. teguñu ko fenn lu dul doon ay ndaw gëm suñu bopp ñëpp naa ñu mënul nekk ñuy jéem yàlla suñu borom dooleel ñu kattanal ñu. gaan lii moo si des incha allahu rabi tamit bu neexee yàlla dañ koy jël ji. waaw mooy affaire yi nag xam nga àdduna da ngay wax ñu yaakaar ni dañ la dee wala benn affaire waaw ñun sax ñun bu ñu neexee ñu dee ñu nag sëñ gaawaan lañu àndal ñun ragaluñ fuñ jëm làmb ji nag coow li bari na torop ñi ngi dégg ñëpp ñi ngi wax nag ñi wax ñëpp ñi ngi leen di seet seetkat yeet

mais bu gaynde ñamal ma gaynde bi dañ koy jël incha allah si yàlla dem jël empreinte bi teg si oh. eh loolu laa bëggoon leer na ñoon rawalu doo taxaw doo puub doo saw doo tëdd doo nelaw waaw wax loolu man billaay walaay roi bi ñi koy yóotu mënoo na jël ñooñu xoola na leen tege nee xam ne maanaam kim jël kim jël maanaam bokkut ak ñooñu kii xeer bu wow kongu la dëgër këj billaay toj ko yombul bokkul doo leen tëggaleeg si ta xale bi màgg na ba muy door dañ ne maanaam kii du sori si làmb mu doon lu tuuti ñuy soox ak moom di jóge ko daanu barki Rasulaay ba yàlla def tay jii nii muy bëreeg roi des arènes Modou Lo dëgg la jàmbaar la champion la mais dafay fekk euh, maanaam papaam mu toog muy sita moom mooy kul mbër boo xamante ne maanaam ah kuy bëreeg moom da ngay suur Siteu kuy bëreeg moom da ngay suur moo moo du fu mu nekk day xaar waaw daa paase bakk fu mu nekk nii jàll na mais fu mu nekk nii pour mu sori du yomb si Siteu maa la wax loolu. billaay walaay pour mu sori du yomb. ñun combat bi kañ la taxaw ba taxawee yàgg na ba mu taxawee ba tey gis nga suñ barrières yi jógewuñ fi saa yoo ñëwee fii nga ñuy fekk gars yi kafree bégee xam nga waxtaanee làmb ji te ñëwagul naka lañ ko waxtaanee roi des arènes roi des arènes bi Siteu lañ ko yéene yéene wuñ ko keneen keneen yéene wuñ ko. non du cadre mystique ñiñ moom la jëli si kàttanu yàlla am nañ yaqin bu wóor ne maanaam dañ koy jël am nañ yaqin bu wóor ne dañ koy jël billaay walaay roi bi dañ ko kaa aaloon roi bi xam nga ne bul buy tourner la rek daa tourner ba ñëw si moom day tourné ba dëppaat ñëw si Siteu maa la wax loolu. maanaam maanaam gars yi dañoo wax lu waxuwul xam nga lu waxuwul mooy maanaam nga gis benn champion boo xamante ne day jëli ji roi des arènes bu ñëwee signé ah nga dégg maanaam adversaire am Modou Lo dégg naa lim ko wax mais loolu après lañ koy waxaat du léegi ndax nee na Siteu yéen wax ngeen si am. ñun dañuy wax boole kaak jëf jëf mooy lan ñu ñëw mëtloo na fexe dëggal boppam parcelle un ba deux ba vingt six na ñëpp taxaw gunge seen mbër waa jàmm gën jóg gunge Siteu mu dem jëli ji roi des arènes ñu feel fair jël ko si kàttanu yàlla indiwaat ko jàmm gën ñëpp bëgge mu dem ba jonwaar dem ba fépp wër fépp dem ba daaru salaam dem ba tiwaawoon fépp billaay walaay waaw jaajëfal nañ leen. waaw fay nañ la di la siyaar bu baax ñu ngi si jàmm bu baax a baax Siteu suma rakk la waaw bokkuñu dara mais dama ko yar depuis Mbapat. waaw waaj ko comme nañ doon waajee suñuy combat ba pare pare ci tous les plans pare ci lépp xam nga nit ki ka nga xam du loo xamante ne dañ la koy jàngal. Siteu ba ñuy nekk ma ngay bëre mbapat di toj diggante fas Mbao Boun ak àll bi doon lu tuuti gars yi naan peut-être que ni daf ci toll rek day foo ba nu mu duggee ci arène bi am ñu bëri ña nga xamante ne seen bët tegu ñu ko woon ne Siteu dina dem bay bëre ji droit drapeau ki roi des arènes waaw. combat pare waaw pare nañ ci tous les plans xam nga def lañ lañu ñu war a def lépp di nuyuwaat Posa sunu adversaire moodu di ko jox wàccuwaayam di ko siyaar bu baax di xamal ne ni nit ku baax la nit ku gore la champion la def na lu bari ci biir làmb ji waaye day bëre ka nga xamante ne day doonu doomu dëkk. diggante Jonwaar ak jàmm gën doon taalibe Baye Sidi alxuraan di doomu jàmm gën pire et dire waaw. ñu gis xamante ni supporters xam ah, Modou tey jii bu ñu pare woon ñu gis beneen façon Modou Lo làmb ji dina am fu ko nit ñi yóbbu dayaar ñu ngi wax la nga xamante ne moodu taxawul sax taxawaay boobu da ko xam Modou doo xam ci complot ku xam Siteu doo ko xam ci complot parce que Modou tey lu mu lu mu mën a am tey boo ko tegaloon deux cent millions téye couronne bi moo ko gënal mais rawatina ñun ñi nga xamante ne dañ ci topp di daw ba ñuy xale ba léegi kon ku ne Modou dafa parewul wala Siteu dafa parewul da ngay wax lu la neex. <coughs> mais tamit en tant làmb mm-hmm. ji ku ci xaar une deux mm. du egg déedéet. dégg ngeen loolu mbër la champion la mais si teyit mbër la champion la ndax lu ñu indil Lac de Guiers buñ ci yokkee tarfatal ay ni Modou day xaar. lamb ak mystique ñoo ànd mais mystique troisième position lay ñëw. waaw Modou la mooy Ama ak Boy Niang. xam nga lamb euh, ji boo ci nekkee di sóor doo dem. ndax da ngay sóor loo xamante ne xamoo kañ lay suus ndax luñ dul tay du mën a suus waaw maa leen di fay. non instant bi toll nii nii waaj nga wax loolu ban question nga posé laaj waaj nga wax waaw. parce que dañoo gis nga tëju nii mel ne. ñun ñu ngi mel ni kuy dem arène national nii nii bu fekoon tey tey tey tey tey tey ñu sëgg xoolal ah, mu dagg ku nekk dem. tey tey day doon let's go. dégguma laaj ma leneen frère. Ah. ñu waxtaan ko waa. waaw question la waaw waaw euh, mool ngeen am Modou ñu xam ne Modou Lo moom Modou Lo di yeneen bëri ngeen am Modou Lo Modou Lo ñaari booy yoo xam ne ñu gën a naqaree si si làmb ji la mu jàpp leen daan leen am ama manière bu ngeen ah, la li dal Siteu moo dal Modou ah. ñoom ñaar yoo xaw a yem làmb gu waa ndax seen tàmbale ñëpp dañ doon wax naan duñ dem fenn ñii ni matuñu mbër të tënk ko si gudd ak rëy te làmb doxewul noonu te yàlla boole na leen ñoom ñaar Siteu bi ñuy tàmbale ñun ñu ak Siteu depuis 750 dañu àndee 750 ba roi des arènes kon Siteu wàcc naa wàccoon nag ñun su mu juumul Pikine nga wax daan na fa ñaari móorloo ñaar móorloo daan na fa ñaari mbër du moins daan na fa ñaari mbër loolu wërsëgam la foofu hmm. mais amaana wërsëgam mënul doon fii nii non fii caama gën la fii caama gën. déggoo caama gën caama gën laa wax caama gën. dégg nga caama gën caama gën. kañ yeeg pig pig yeeg. man lamb ji daa am fu ngeen ko teg daa mel ni yéen dañu leen dee victoire bi wala dañu leen dénk couronne bi wala leen nag la sàmm de ma koo jël la mën la. waaw ngeen ngeen ngeen ngeen xeeb Modou Lo mel ni Modou Lo moom leneen la. Modou Lo non non Modou Lo mënuñu ko xeeb. Hmm. ndax Modou Lo nekkul mbër bu ñuy xeeb li mu def si làmb yëpp ñun Modou Lo amuñu leen lu ñuy wax ak moom Modou Lo maanaam tey ñun ñun sax avant tout sax ñu dañoo bëgg Modou Lo avant dara wax Modou Lo gentleman la ñun ay Baay Faal nañ ay taalibe sëriñ Touba ay taalibe sëñ Maam Alaaji Maalik ñoo fi ne man sëñ Babacar si laay nooyee yaa may dégg bu baax Modou Lo boobu noonu tey say man Ababacar boobu noonu da buñ ko koy wéyal sama xol day sedd te man lu dul sëriñ Babacar si topp ma ko moom laay nooyee dama koy daw waaw ñu gis première signature bi daa mel ne yéen a ngeen complexe Modou Lo par gis Siteu nga xam ne Siteu signature day neex day yëngal day def yëpp waaw ñu gis première signature bi Siteu deful dara mel ni yaru mel ni moom yaa quelque chose mais c'est parce que moo nekk nit koo xamante ni tey say képp koo jël si làmb te respecté ko mooy nax nga sa bopp ah. waaw waaw Siteu ko xam nga xam ne Siteu waaw yow mais dégg nga la mais tamit Siteu ay signature am mais Siteu Siteu amatul leen lu muy prouver ñun ñun ñun dañoo xeex suñu liberté démb tey di soogay ñëw lay xale yi ndaw nañu woon démb dañoo ramper ba àdduna àdduna xam ñu bi ñuy départ fii nañu nekkoon si koñ bi ñu naan ay guincement nañ ñi naan ay sàcc nañ ñu naan ay agresseur nañ ñeen ñi dem si ay kaso tëdd ji tëdd ji si ay juróomi at soo koy ñëwaat ay mbiru Siteu dafa yéeme ay mbiru Siteu xool ay scénario yoolo moo tax gisoo yow lii nii nga leen indi fii nii xoolal loola daf fi indi ñeneen ak ñeneen ñun àdduna dañuy xam bàyyi force am nañu maam Sidi Alxuraan suñu biir gox suñ Sidi Alxuraan rek sang waaw biir mbàkk moo ñu defar ñun ñëpp. kon tey lan bul ma dog foofu créel boppam mbaru boppam tax maanaam tey ñun ñëpp boo xoolee suñ Sidi Alxuraan moo ñu créé ndax biir Daaru Salaam lañ doon organiser ay mbapat ndax boobu bu ñu demee Touba yor na xam ne ne ay na yor na ay ndongo yu xaw a dëng xam nga waaw ay ndongo yu të xam nga affaire xale fugu de jeunesse affaire yooyu mu ñuy organiser mbapat ci biir këram ñu fay bëre mu ñu tegal ay loo ay quinze mille ay sept mille cinq cent lese ñu ñuy bëree suñu biir Siteu foofu la génne biir Daaru Salaam moo tax ko kooku day am lu baax kooku sëriñ Serigne Babacar si day am lu baax xamul tax muy am lu baax tey jii ma du ma géewlu juddam sama amee enfance la ñoo foogandoo kuti boobu mbow yaayam ak sama yaay la woon papaam ak sama papa mais daw ma peloton si moom damay dégg lu nekk mais man Siteu laa gëm te xamul tey say ànd ñun ànd ñu ndax am-am ànd ñu ndax tur ànd ñu ndax bës man yii nii sax dama rëcc tey nii sax yii yomb ma yéen sax miinoo leen ma si yii mais Siteu di ko ñaanal di woo di woo di woo di woo képp koo xamante ni nii yow supporteru Siteu nga wala nga nekk fan su Siteu wala ngay bëggee Siteu wala même boo même boo bëggul sax ñu lay ñaan boo fiy ñëw nga indil ñu jàmm nga combat bi ni ñun jàmm nañ si wootee di woo ñëpp képp ko waaye mbokku ba yëpp ñi si kañ a yeeg xam nga man xam ñun xamante nañ kaña yeeg ñooñ noonu ñu ngi leen di xaar tamit boo leen ñëwee tamit regle rek ku ci réglé wul dañ lay jàpp yóbbu joxal la suñu boobu alkaati kenn du ñu ndey sonal boo ngeen baal ma ci saaga bi boo si te demoon Gambie ñëw ak état formé bi ndax bi ñu ñëwee jugee Gambie ñëw gis nga ko bi mu indi bëgg nga ci wala boo soñoon day yomb non état bi instant bi toll des na ndax laa ma ci tamit des na aussi sant mi toll ñun li lépp luy war si ñun rek xam nañ ko te ñi ngi si te dafa am loo xamante ne dafa personnel Modou moom si lim ne ñun sàkkuwuñu ko xam la nañ sàkk ñoom yàlla defal ko wér ak tan ak ba bis ba mu ñëw ñu jàpp ko tam mu tàngam bu bi ah loolu ngay waaw yow waaw waa ji nag du ma la nëbb de suñu grand la nag respecté nañ ko trop ñu ngi koy sànni ay fleur genre ay affaire nii mais dem dafal nang de bu mu fàtte ni tàng ñàng yi lay bëreel ah, gars yi gars yi dañuy soppeeku gars yi dañoo bëri ay yére gars yi dañoo bëri ay bagage gars yi nii ñuy waxee yow sax mën na la dawaatal beneen page ah. gars yi dañoo bëri ay bagage maanaam tey Siteu Siteu Siteu yaa tout jàmm gën bokk jàmm gën bokk di moins Siteu yaa tout mais jàmm gën tamit yaa tuu foofu du moins sax amu fa place ñot ndax ndax Siteu tamit dafa naa turu jàmm fu mu egg tey waa ji man kasola laa nekk nit ni ma foo dëkk man ko jàmm gën mun ma jàmm fan la nekkati sax booy bi mi ngi dëkk allé west foire bi quoi mën na koo gaan jàmm gën xamoo ko munu ma non non jàmm gën xamoo ko jàmm gën fan la nekkati mais tey jàmm fan ngay taxaw senegal ni jàmm gën ñu naan la xaw ma ko wala xam naa ko nii ndax à lan suñu benn bayval koo xamante ne nii man wala man sama dama feer gis nga jàppee muurloo daan ko barki Serigne Babacar Sy bu fekkee dinaa sonnati ci mbiru mbëru làmb man amul benn mbër bu may topp bu dul Siteu bu dul Siteu ay Nis Ndiago booy nii ay Mara ay yille yooyu noonu booy ay Abu xam nga te loolu tamit deret la ndax ñun ñëpp ñoo far ñun ñun li ngay gis nii nii chaque jour ñu nii lañ koy dundee bu dul làmb ak bu dul làmb jàmm gën lii moo fi am jàmm mais ñun dañoo dëkkal fu ñu dëkkul te instant mi ñun ay xale nañ woon mais màgg nañ di wax ñëpp nañu xoolee bëtu comme ay bëtu nit ñu ñuy dawal yërmande yenn surtout surtout alkaati yi. boo xamante ne ay xale yu jigéen laa fi fekk ak ay mag ñuy togg leen laajee dañ leen julli yi nga xamante ne dañ leen jongaloon. xam nga ñoom lañ doon ñoom lañ doon suñu tey. grand aussi boobu muy acte social bu boo xamante ne ñëpp a koy rafet wóor na yàlla démb nañ leen doon kesengal sax mhm. démb démb démb nañ leen ko doon kesengal ki ñuy laaj mën a tontul boppam démb nañ leen doon kesengal. xale yooyu noonu tey maanaam sita loolu noonu Siteu loolu noonu bi mu ko dalee def ak léegi yàgg na Siteu même bu dul loolu yooyu mooy yi nga xamante ni tey see mënul nëbbu moo waral mu feeñ mais am na yeneen acte yu gën a rafet yooyu noonu yoo xamante ni mi ngi koy dox si biir population jàmm gën si kaam mbaaw Télimam jaara surtout nag Télimam jaara ndax Siteu Télimam Diarra la juddoo Télimam Diarra ñu bëri dañ koy fàtte te ci la bokk Télimam Diarra tey see ba Fass mbaaw ngay gis noonu jàmm gën tey see boo nee jàmm gën nii jàmm nga dafa yaatu ndax li mu ëmb dafa bëri quoi di woo. xanaa bu ñu daanee moo Lo ñu ne kon dañuy jàppale. dañu bàyyi loolu mais abu yu bari. espère lamb yu baree bari joxuñu Siteu favori yéen nan la leen de mais loolu yàgg na ci Siteu. Siteu loolu moom Siteu laa déggee dañ ko joxoon favori. waaw ñu ñëwaat bi joxaatuñ favori dañ ciy sant yàlla. waaw làmb ji Modou Lo nit ñi la jaaxal ak waa làmb mais ñun waa jàmm gën yéemuñu. ndax lan waaw parce que mbër la comme yeneen mbër yi rek xam nga di góor comme yeneen góor ñu surtout di góor gu dëgër waaw te noonu la demee bii du yooyu gars yi damuñ dara ñoo ko gën a dansé. fere na Ama Baldé. waaw fere na Boy Niang. ci si yalmin bi borom dëkk bi ngeen waxal xale bi maa gën a. moom loolu yéen la ñi ciy wax ak ñoo ñun bàyyiwuñ ko sax xel. jàmbaar la nag. mais eh, billaay ñu toog bay waxtaan si moom. lu mu bax ñu ngeer ko maanaam lu mu bax fekk ko fi. lu mu bëgg ko dara. non sax si yooyu ñun loolu ñoruñu suñu combat maanaam si combat ak Modou Lo moo ñu ñor. ay roi ak loolu sax andiwuñu xam lu ñu li ñu maanaam li ñëpp wër li mu soxla maanaam li mu yor moom lañ soxla te incha allahu rabi dañ koy jël si andi ko fii si dëkk bi. gëm nga ni Siteu mën na doon roi des arènes. ma ñàkk su man day dama ko gëm 1000 pour cent. billaahi wal kitaabi yàlla rek a tax may wax. abu boo doon am looy teg le 24 combat Siteu ak Modou Lo loo ciy teg. waaw bañu ma si dërëm xëy na nag du ma kàtt xaalis moom dama koy wax maanaam déggoo ma la ku si teg sa xaalis da ngay gagné. waaw pourquoi doo gagné da di jàmbaar. di góor comme moom di kilifa muy kilifa chaque jour ñu ne dañ ko ëpp doole ci de lamb moom yëpp dañ ko ëpp doole la ni ñu di wax. mais mais dama gis yéen ñëpp ay ñoom liis booloo yéen ñëpp ngeen nekkaat ci lan ah, mais liggéey rek liggéey rek affaire yi gis nañu ci liggéey rek liggéey rek te liggéey moo koy maye ah li mu am ni liggéey moo ko fi andi. ah ñu ne ñu ne Modou xeex si te. <laughs> loolu ay waxu kacaw kacaw la rek waaw gis nga kanam foo dóor mu saf dañ bàyyi yooyu yow sax boo ma dóoree ma yëg ko waaw kon Modou Lo bu dóoree Siteu da koy yëg mais xanaa Siteu bu ko dóoree moom du ko yëg waaw góor man loolu bañ a dégg te yi ñu bàyyi wax ji nañu wàññi wax ji. lan la sëriñ si dañ la tiital wala. non sëriñ yi dañoo mën a tiital maanaam gis nga ndam yàlla moo ko yore yàlla. na gis nga kii daan suba yàlla moo ko yore dañuy ñaanlu mais gis nga ndam si liggéey la nekk ak gëm sa bopp te ki ñu àndal gëm na boppam liggéey liggéey na loolu moo ko andi fii wax bu bëri andiwu ko fi xëy na tey la ñu boole Siteu Modou loo wax ji bëri ku nekk bëgg a wax Siteu yeggul nit ñi ñoo soxor des fois sama xol day bon ah, parce que xam la moo tax sama xol di si métti Siteu Lac de Guiers la bëreel mais Modou Lo dafa daan Lac de Guiers par avertissement kon nañu bàyyi yenn mbër ñu jëm gis nga Siteu mbër bu ko si yab rek si média bi nga toog wala nga toog si ruq bi mais boo dajeeg moom da nga koy abal taw barki Serigne Sidi Mbacke Awa non da ngay toog des fois bi day bon si yoo xam ne kenn du wax mais man li may xam naa ko bëri na si mbër yu nekk si làmb ji laa di wax affaire yi maanaam di kebetu sax laa bëgg wax di bandi bandi ku si dajeeg si te da nga koy abal barki maam Cheikh Fall non parce que gis nga mbëri nañ gën a respectante gis nga nit boo ko ñe boo leen boo leen jàkkaarlooee xoola boo bu la boo leen jàkkaarloo moom doo ko wax bul nekk si micro di ko wax xam nga li ma la nit boo ko ñemee da ngay dajeeg moom nga nga ne ko hey nii la demee mais doo toog ci média chaque jour eh, di kebatu te yow boo séenee nit ki fële na la ngay jaar dañ bàyyil yooyu ñu si dara la ñuy topp ba ñu si dërëm. abu mais abu ba pare yu bari na ñoom li leen jaaxal mooy saabu abu àndeeg sita Siteu moom combat boobu lu ko jaral la lan la. non parce que noonu lañ àndee ñun lañ àndee te ànduñu si caaxaan wala ay kàcc wala ay tapalante dañuy joxante ba mu jeex. dañuy dëgg parce que loolu moo ñu boole. te ci la ñuy dee. te ku gëm. non bàyyi loolu non waaw xam nga yàgg na loolu du tey. ke ku la wax Gambie lañ nekkoon yooyu. non gars yi ne ñoon Gambie de bàyyi lañ. gars yi dañuy wax rek. gars yi dañuy wax rek. gars yi wax rek. en daal mu ngi liggéey def si ko. kaay kaay koli koli bu la bu mënee Siteu na ko warax. <laughs> bu ko mënee na ko warax. bu ko waraxee day day fatt. bu ko mënee na ko warax bu dee da ko bu dee boo ko mën na ko warax. day fatt kon. Siteu du ku ñuy warax de. Siteu ñox la am alee la am mais amul retour. billaay walaay kala dara la li ngeen di xabtalu bu ko mënee na ko warax bu dee nangam. combat royal yi ak combat bi du benn de. li ko taggee sips. ba jam ñaajo. ñu ñoo bëri combat royal. c'est la première fois. ah suñu mbokk lañ ci gar. mais làmb ji lan la lan la. làmb la. mais mais ñëpp ñëpp ne Siteu ñëpp ne Modou Lo moo man Siteu. waaw ñooñu mënoo ñooñu déggoo mënoo lañ xam xamuñu Siteu li nekk seen xel la ñuy wax li nekk seen xol. Ah, kàcc waxuñu dëgg ñooñu li nekk seen xel li nekk seen xol moom la ñu wax. kii ne ma ku la ne mbër bii moo mën baal ba dimanche. làmb ko bëre da ñëwagul. Siteu góor mënu ko. dawuñ ci dara barki maam Cheikh Fall Modou Lo ma ak moom tay ma dëpp ko départ. waaw ngeen naan waxuma laa Siteu Siteu moom ma dëpp ko départ Siteu ñëwagul. ñu ngi ci réew mi ñu woon la nekkoon bala neex na ndayam. neex na ma la wax. waaw yow kan mooy Modou Lo yow. Modou Lo gërëm ah fa la dëkk. ki daan Ama Baldé daan Boy Niang. waaw yow Ama Ama parewul. li muy daan Boy Niang. mu kii da koy saraxe bii du yooyu kii da koy saraxe Modou Lo barki maam Cheikh Fall lay xaar mu nekk mu naqari ko bii du yooyu de kii yabuñu kii dëkk moo ko da nga naan bis bi fu mu toll dëkk mi réew mi voilà da nga naan bis bi fu mu toll ci réew mi kii borom réew mi la kii borom dëkk bi gars yi naka borom dëkk bi xam nga dëkk bi jaamu gën kese la kii borom réew mi la yal saane yal saane Modou Lo bu ko mënee na ko warax ma gars yi na ko lekk na ko warax la ko war a. gars yi. loolu lay liggéey ba mu romb sang bi. Nadine, Nadine Cotana, Nadine Cotana.

gis ngeen ko noonu kii mooy Jagoru Siteu